jeudi 21 octobre 2021 bi 20 heures jotee ba tegal ay simili la am ay nit yu yegsi fii ci kër kenn bëggul bu Serigne Moustapha Sy Al Maktoum ginnaaw bi kenn bëggul génnee bay soog a yegsi am ko yegsi ci kër gi jaar fu ñaaw ak làmmiñam teg ci xool oto yi kenn bëggul yi ba mu neex ko mu ne bu fi oto yi di gaare daañu ko toj te lépp ci buntu kër kenn bëggul bu Serigne Moustapha si ci noonee Ken bugul di araftu njabotam ni len borom batu nen di xex ak borom caq kon nak dugg leen ci bir keur gi ndax donti ñi ay mo len fi indi ñun jam rek ñu fi bayyi koku ka daal sag ken bugul jaar fu ñaaw ken niko sama njabot lay araftu ndax yeen jam yëkkatiwu wu len koku di jaarat fu ñaaw ginnaaw ga boy tambale songu wa keur ken bugul yi nistuut ci le police ak ben auto ak element yu neew pour def intervention samba boy yu don songu wa keur ken bugul yàggul daal di gaañ kenn ci police yi ñëwoon ci la police dolli renfort bi renfort bi yegsee ca la ñu tàmbalee sànni ay lacrymogène ngir sàmba booy yi mën a jóge fii ci kër kenn bëggul ñii nag seen jëf ci lu ñu waajal lool la ndax koñ bu ne amoon na équipe bu fa taxaw li ñëwoon ci buntu kër kenn bëggul kenn xamul nu mu toll ci bëriwaayu nit lépp nag ngir faagaagal ko rek mbaadu kenn li mu naan dërëm dencuma ko ci banque moo tax ñuy def attaques yi ngir xam fan la alalam ji ne mbokk yi bisu tey bii alxemes ñaar fukki fan ak benn boo duggee fii ci kër kenn bëggul sa yaram dafay daw ndax ni ñu def waa këram gaañ leen ay gaañ yu metti lool ñi marto lañu leen dóor ba seen boppu toj deret ji du tuuroo xam ngeen ni lii ñaaw na lool am na ci ñoo xam ne paaka la leen jam ci seen loxo ba deret ji tuuru mu metti lool ci ñoom mu metti lool ci ñoom ñu sonn lool leen rekk moo doon seen yéene mooy faagaagal leen am na ci ñu am ay blessures yu metti ba taxaw sax jafe leen ndax méttitu blessures yi ñu àndal xam ngeen ne fekk nit biir këram ku fa indaale tawat mu saafara la ba sa kër mën a naat am ñu ne du fi amee am ñu taxaw ne du fi amee kii daal bi daaram tàkkee mboolem daara yi nekkoon ci fay mi ne nag du fi amee kon nag nañu ko faagaagal yebal ay ndaw ngir ñu ñëw song waa kër kenn bëggul lépp ngir faagaagal ko moom kenn bëggul attaque ay njabootam gaañ leen ginnaaw bi ñu attaqué nit ñi ba gaañ leen ñi ñu dóor leen ay marto ñi ñu dóor leen ay jaasi ñi ñu jam leen ay paaka ba mënatuñu lenn ñu ne daraam dootul taxaw ca la ñu jubali oto ya commencé toj oto yi mboolem oto yi kenn bëggul gaare fii ci këram toj nañu leen ba oto yi toj yàq kañaan laam soxor la wala lu mu doon mbokk yi xool leen image yi xam ngeen ne lii ñaaw na lool fekk nit këram mu toog indi jàngoro mu saafara la ba nga nekkaat nit di saafara jàngoro yaram yi di saafara jàngoro poos yi nga ne ko du fi amee façon boo ko mën a attaqué nag di nga ko def dina la jaral fay ay nit ngir ñu ñëw song ko ba bi minuit dee jot xale yaa ngi taxaw ci koñ bi boole kook ay saago yu doy waar teewul police mi ngi taxaw ci koñ bu nekk ngir daal di aar kër kenn bëggul bu cheikh Mouhamadul Moustapha Sy Al Maktoum mu metti woon lool nag ba tey ji njaboot yi nekk kër kenn bëggul li leen dal metti na lool ndax ay nit ñi toog nekk ci seen bërëbu liggéeyukaay ñu fekk leen fa attaqué leen ba ci biir kër gi gaañ leen lu ko fi jar xoolaat leen image bu baax a baax daw na yaram lool fekk nit këram attaqué ko gaañ ay nit yu nekk ci biir kër gi tojate oto yi ak i xeer bu ku jaar fii sa yaram lay daw guddi na lool ànd ak lii lépp ñu def kenn bëggul bu Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy Al Maktoum mu ànd ak dal ànd ak tekkaaralam xam ne yàlla rek a fi ne ndax bëri pexekat nekk ci jub da ko gën te ku nekk ci njub nag yàlla ànd ak yow jaajëfal nañ leen ci teewlu bi ngeen di teewlu RTV Dakar yow mi abonné gul abonneel ngeen commenté like suñuy vidéo